baax jërëjëf jërëjëf gën a Aliou Ndiaye jërëjëf Boucher li tax ma jël la sa waa ji Balla Gaye numéro un deux tey dafa ëmb Youssou Ndour xale Guédiawaye yëpp topp ci ginnaawam mu ñëw Youssou Ndour yàlla may ko ndam tey ji loolu boo amoon kàddu yoo kii sànni ndax xam naa ne tey ji boo nekkoon Sénégal ci wetam ngay nekk te ni nga nekk Amérique suñu borom ndogalu nga nekk fi Youssou Ndour àndam ci kaw Mor Kang Kang di combat bu métti Mor Kang di jàmbaar di garmi di xale bu am jom Balla Gaye ëmb géejawaay gépp ak Balla Gaye xale yi ci kanam ndax te Balla Gaye dafa war a bon geste mbër boo nekkee njiit ci kanamu xale nii ngay doxalee comme ni Balla Gaye doxalee tey ji loolu boo amoon loo ci wax lan nga ci wax balaa dara faram keroog live bi fii laa dugg ne la suus waxoon nga ko. parce que Mor Kang Kang moom champion la mais moo yee làmb ji xam nga nit di nga di nga di nga di nga am làmb dugal ci àdduna bépp. Mhm. te moom loolu la def. ñun dañ doon nelaw yaakaar ni rek dañoo dañ doon nelaw yaakaar ni rek yuusoo ko mën defuñ ci benn jeego. Mhm. waaye bi mu duggee ci live bi di wax ci Balla Gaye naan na Balla ñëw ma daan ko. open open press bi la open press waaw affaire yooyu non dugg na ci yow fii nii wax lu ne mooy ba may dugg. waaw waaw. wax lu ne damay daan daan nii sa papa xaw ma daan nii ma ne ko eh, rek si laa dugg. Mm-hmm. ne leen force yuusu da koy daan. Mm-hmm. te yow ba ma coupé barki Cheikhul Khadim ci la nekk ci làmb ji. Mm-hmm. waaw woon ñàkk combat bi parce que làmb moom foo ak ree la waaye ku daan rus. te. am na yoo xam ne boo ko communiqué rek day doy waar champion la nag mais na wuti doole Fadam barki Cheikhul Khadim Mor Kankan mënumaa daan man <coughs> la wéruma billaahi wama soo ko soo ko weddee mm-hmm. bu ma ñibbisee ñu dem géeju waaye ñu mbaaral ñu foofu barke alxuraanu karim doole ji mu yor mënumaa daan parce que dàquma bëre benn bëre bi muy bëre dafa téléphonique dafa téléphonique de trop bëtt bii mu bëtt munoo ko ko bëtt boo xam da ngay bëtt taxaw ñu taxabal la nga ci taxaw te ki nga taxabal munoo ko ëpp doole damay kal sama benn tànk jàpp benn bi ci pooj bi wiiru billaahi wallaahi Mor Kang Kang boo ñu géewalee vingt deux heures ba vingt quatre heures munumaa daan. ak Mor Kang Kang ni nekk ndaanaan ci nekk onze victoire Buse onze victoire simile doole jee des doole ji des na bëri bi des na am na coow làmb nag nit ñee ngi yuuxu nii di kii mais champion làmb danga koy jàng nit ñi nag léegi làng làmb dafa yàqu xam nga dama yàqu da ngay ñëw am mbooloo gars yi ñëw jël la bëgg la tëbal booy yu bari dinañ wàccaat hmm? booy yu bari dinañ wàccaat man maa la ko wax ñi ñuy tëbal ni yëpp ci suuf lañ jëmaat dañ leen jaarale yoon bi ñu war a jaar yuusu champion la Mor Kang fii bu suba mënul ci yuusu xeer yaa ngi noonu bu ko songee day taxaw bu yuusu dóoree hypercule mu rocceeku génn bu jàppee def li muy def xolo fi mu yegg yuusu mënul génn parce que yuusu loxo bi benn loxo yuusu bi mu ngi ci kaw mais Mor Kang Kang mënul sax fi taxu pour loxo boobu génn xam nga ne bu dindi woon loxo yuusu bi mbaar ci kaw mun na daw bëtt ko wul ko ndomba mais munul sax fi taxu pour loxo yuusu boobu génn mooy doole ji des na na liggéey ba ci kanam jël ay moroomam di daan làmb boo amee mbooloo da ngay jël say moroom looloo dal baaba jaxal baaba jaxal mbooloo kese la mais mi ngi yàq làmbam parce que mbooloo mi ko topp nii bu daanoo ñaari ñaari yoon yii mu daanu nii bu daanu ñëpp bàyyi ko léegi jël say moroom daan mbooloo mi noonu continuer ak yow xoolal Siteu parcours bi mu jaar Siteu balaa muy bëri ponkal yi bëri na ku ne Siteu bëri na ak xam nga kii ah, nu mu tudd kooku nu mu tudd matrailleuse. déedéet non mu tudd eh, eh, tudd waaye eh, nu mu nekk Pikine rek. waaw waaw. na na naaru sukaas ngay wax bëri na ak naaru naaru sukaas mais bëri na kii nu mu tudd. maanaam phrase yi phrase yi ak maanaam séeras. maalaw seeraas dafa topp di jël ñoo xam ni leer na ko ni moo leen ëpp doole di rampe mbooloo mi topp ko rek mbooloo mi booy daan ñu topp la booy daan ñu topp booy daan topp la léegi mbooloo mi boo jëlee punkal bu la punkal bi daanee mën nañ la ko muñal benn yoon muñalaat la ko ñaari yoon waaye duñ la ko muñalaat de looloo dal ay baaba jaxal baaba jaxal kereeram bi dafa ma metti man xaw ma ko musuma ko gis mais dama gis day indi mbooloo mais boo indee mbooloo daanu amul sens kon da ngay jël say moroom yoo mën sax mais bul jël ñoo xam ne ñoo expérience moo kon que tey dina am ñoo xam ne am na ñoo xam ne am na supporter yoo xam ne mënuñu muñ defet moo tax da ngay jël say moroom te làmb léegi gars yi baale wu ñu defet de ndax jaral na leen lu ne ku daanu ñu balaa. mais bal Balla Gaye numéro 2 tey bi nga ko gisee. dix-huit heures mu dugg arène nationale bëgg bés bi lan nga yëg. waaw Balla ci biir làmb ji lañ doon waxtaan appel vidéo barke alxuraanu karim ci biir làmp ji lañ doon woote appel vidéo bi mu duggee ba ni mu toogee ci seize boobu ba ni mu ñëpp man la doon waxal saa yoo gisee tey téléphone man la woo ñuy wax parce que làmb ji fii la ko tegoon. ndax lan. dama ko woo ne ko sa da ngay dem stade ah? mu ne ma bañ a dem buuse loolu mu ne ko waa ba demal de mu ne ma foog ma dem parce que kii bu dul dara papaam nu ma mel moom la ba pare tey laay fay bor bi papaam ndax Balla Gaye is nga xam ne Balla Gaye combat su musul fekk Balla hmm? bi papaam gaañoo ba tey combat Balla Gaye musul fekk Balla Gaye combat yu su musul fekk Balla Gaye Sénégal bi père Balla Gaye gaañoo ba tey. extérieur rek la koy fekk tey la waroon a fay bor bi te Balla Gaye li mu daj ci combat bi man ak yàlla ak yonent bi rek ñoo ko xam daj na ci lu metti woote na fu ne dugg na fu ne indil nañ ko lu ne def na ci lu ne tey bi mu ko tiimee dana ko laaj ko lu mu ko wax dana ko kii noo ko bëgg nga koy def tey kii mun laa daan boo doon takk say bët sa du la daan te loolu moom Balla tey ma wax la benn affaire nag seetlu ko de. ñëwoon. Balla li muy ñëw esaat di indi mbër mu daanu bu mësee am est mës na am wala bu mësee am est-ce que benn yoon la mësa am. Ma Ndiaye. te Baye Ma Ndiaye bàyyi na làmp. waaw moo moo kii woo ma seen ma xaadim ba tey Balla Gaye indiwul mbër mu daanu. barki démb maa ngi koy nee na leen ndax Mor Kang Kang mu ngi sóoraale dugg si Balla Gaye 2 ci làmb ci Balla Gaye moo yàq làmb moo ko yàq waaw parce que papaam la daf ko yàgg gën a yàgg ci làmb gën ko xam làmb Balla Gaye pour mu indi mbër mu daanu sérieux problème la keroog bi may bërëje ak Ziza waaw daa bëggoon a ànd ak man këram laa ngemboo mhm. moo ma sang ci kaw sangum biiram sang ma def ma lépp takk may jàjjeg lépp laa ilaaha illallaah di naan for na mhm. ne def ne def ma yóbbu saat ñu wàcc mooy waaj ma ko sa waay xanaa demoo mu ne ma demal ma ko la ma ne ko sa waay li may dëj sa làmb yëpp doo jàpp sama loxo mu ne ma demal maa ñëw <laughs> daa gis defet ba. boobu gis na ni damaa fooye làmb ji. Mm-hmm. jëluma ko au sérieux. Mm-hmm. dafa am mayu yàlla gis ko noonu macha allah dafa mayu yàlla de ndog-ndog nag moo ñëw ak ay tolof tolof nit ñu bon ñi Balla Gaye tey daan na Modou daan na Yékini daan na diw ak diw ak diw ñooñee ñoo ñëpp bëgg ñooñee. ñoñe ñep bu ñu ñaaral Balla Gaye duñ ko ñaaral ndam ndax da daan seen mbeur lolo ko japp Balla da teel daan ay champion da teel daan ñu seen dëkk yi yaakar ñu seen gox yi yaakar xolo mod Lo tay ba yëpp yaakar ko saa yu ñëwee Balla daan ko Yékini Joal ak Baasul ak Joof Yoor ak Càmmiñool ak ñëpp ko nga ñew daan ko ku ñu indi nga daan ku ñu indi nga daan Bawol ko nga lo len te daf ko teel a def ñu ñëpp buñ lay móolu di la def yenn yi looloo indi tolof tolofu Balla Gaye yi rek. comme Balla Gaye móolu yee ko jàpp. móolu yi la rek. Hmm? ñoo ñoo waroon comprendre ni làmb la. ku nekk ku bëgg ndam. Balla Gaye daal teel a daan ñu nit ñi yaakaar. ñu ñoo teel a jàppale Boy Niang. Boy Niang ñi ko jàpp Boy Niang ay fan su Modou Lo dañ ko jàppale. Hmm? ñi bëgg Modou Lo ñi bëgg Yékini jàppale ko. ñu bëgg Tapha Tine jàppale ko ñu bëgg Gris Bordeaux jàppale ko. Hmm? ku ne moom moom dafa am wërsëg. Hmm? <laughs> non bilaay moom àdduna bépp man dem naa ba waa kër Cheikh naa Cheikh Saad Buy man. mooy seen affaire bu rëy bi ñuy def asalem. waaw waaw léegi mosuma. xayma ah ca xayma xayma yooyu jour boobu sax dafa am ku fa gaañu. jour boobu la tabalakat bi de tabalakat bi ki doon tabala. waaw te dëkk Pikine. Ah. waaw jour boobu la gaañu si xam nga bi ñuy def affaire yooyu da doon tëgg tabala ba ci yàgg sedd guy. ma dem ci sëriñ bi maa ngi koy nuyu baax sëñ Baxayda. Hmm. sukk jox ko sama xaalis siyaare ko. Hmm, hmm. ne ko Balla day bëre. sama xarit la. dama bëgg mo am ndam. Ya. man dama génn ñu ne ma légui la fi papa yi ñaa indi nak yaa ngi bëgg dem dem. ak ak ak suñu père de ancien ancien wër na damaa ziyaare ba pare damaa mooy booyu am na booyu mën a fen damaa ziyaare ba pare génn rek sëñ bi rek mu ñaa sëñ bi nee ko rek dañoo am combat bala ba mu téye sama loxo ñaan def ñaanal ma man xam naa danoon lu ñaanal buuse yàlla nga am jàmm yàlla na yàlla defal tawféex li gën ci yéen yàlla na ko yàlla defal yooyu la doon wax rek waaye ma génn rek benn booy ne ma buuse pourtant bi billaay wallaay léegi fi papay booy ñaa yaay booy ñaa ñëw indi fi ngan di xam nga kii mooy seen sëriñ ma ko ah xool ko dem ca baax ba man reer li may reer ñibbi la ilaha illallah eh, bu si jooju ay lamb mais balaa bari sutura nag ak bari sutura Lambu joju biñ né suba la làmb ji ci guddi man ak Balla ak Masata rek ño ànd ak mu yor ci ay vocal yo xamni man bobu ma lamb lay def man man m'en fous lamb lay def man ko partager vocal yi yak lamb boy ñaa Balla bañ parce que alcorane karim bu la nexé nga wo Masata laaj mu yor vocalu kan. ku jege booy ñaar. Oh. ma ne ko génneel lii sa waay dañuy làmb mu ne ma duma ko génnee. boobu xam nga boobu neer yi jóg na làmb ji bëgg nañ ñu làmb bëgg ñu am ndam te booy ñaar mii bu ñu daanee xam fu ñu jëm booy da boobu booy ñaar ngi wax lu ne adduna bi di wax lu ne. Hmm? làmb dafa métti de faram. mais vocal yooyu xanaa dafa garaawoon. vocal vocalu faral balla la fi ba fi booy ñaar di dugg fi booy ñaar lekkee fi booy ñaar di dem fi booy ñaar di entraîner lépp di chaque jour ma ne ko génne lii déstabiliser ko boo ko génnee booy ñaar dina fonne fii yëpp yaa ngi ko fi doon topp xam nga yow fii nga toog naan Balla Gaye boo Niang dafa dem Europe ma a la demul fenn mi ngi ci dëkk bi. non loolu benn coup boo xam ne jaay làmb rek mais boo xoolee matricule yi sax ak fañ doon wax du benn ndax man boobu yëg naa nag Boy mais boobu yow yëg nga ko mais ñi ko yëgul bari ñi ñëpp dañoo foog noonu dem na. waaw mais man man. xam nga man dama yëg ay information yoo xam ne. léegi nag biñ nee dem ci saa si la kooku woo bàll na ko sa waay demul fenn mi ngi fi. mais Balla yenn saay yi Balla ci boppam. làmb bugg ci yenn ceddo yi te ñun làmb ñun làmb ñun dañoo jaral de. mais Balla Gaye de dafa nekk di ko xam ne ni xol bi xet dara new ci Balla kañ yàlla na ko yàlla xal cat yàlla la guddal fanam. Balla Gaye. mais tey dina gis état de forme.